Euh, sëñ Fallou maa ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar baax la fay. am nañ jàmm bu baax a première fois ñu gis promoteur organisé affiche bu mel nii def ko entrée payante ñu bëree bëri ñëw nañ mbër yi gis nañ ci seen bopp rawatina mbër yi xamante ne dañoo namoo làmb noo defoon ba créer innovation bu mel ni ak bis bi lan nga ci yëg. waaw mais dañuy am mbégte bu baax ndax yaakaar naa li yombul ndax boo xoolee dañoo dem Gambie ànd ak suñu frère jamaïcain dem gis fa lu mel nii ñu ne pourquoi mënuñu ko indi fi Dakar ñu gis ne fan yii yëpp fesu fesu bi am day yàqu ñu ne pourquoi ba waruñoo mën a def fesu fesu boo xam ne nii du yàqu def ko entre pente mbëri gis seen bopp promoteurs yi gis seen bopp amateurs yi gis seen bopp moo tax ñu leen concert andi artiste vraiment ñu ñëw playback ñu ñëw pour jouer yaakaar naa innovation la te ñun foofu la war a xaar te foofu la ko war a yóbbu. artiste bu mel ne grand combat bi ci diggante ki nga xamante ne mooy Tapha Mbeur gisuñu leen fi gisuñu Tapha Mbeur lan moo waral ñàkk a ñëwoon. waaw loolu nag moom jaaxal nañu ndax ñun li ñu war def nañ ko mooy jox nañ ko avance am ba mat jox nañ ko tamit euh, bulus moom mu sol ko kon yaakaar naa dem CNG def avantage yi pour signature bi ay ndaw pour ñu ñëw ñëw li tax ñëwul nag peut-être moom la engagé mais ñun li ñu war incha allah nañ ko def ndax contrat bi yor ñu yor ko. ku ci ne xam nga la ci lié ne ñun na defee suñu contrat. su ko jotul xoolaat seen taxawaay parce que ñu jël blouson jox la lu mel nii bokk ci loo xamante ne day jaay làmb kenn ki ñëw kenn ki ñëwul est-ce que jotul bu dul contrat bu dul dara sax mbëri xoolaat seen taxawaay ci làmb. waaw xam nga am na loo xam ne moom sabotage la lañ ko mën a jàppee wala ragal te yaakaar naa nit boo ko ragalee da jël man foofu laa ko teg waaye ñu ci war nañ jël a baax def nañ ñu yi kañ la ñuy def plateau toog waxtaan yaatal ko. waaw en tout cas Ada Fass mën naa def plateau mais dafa am bër à partir d'aujourd'hui dootuñu ko woo fenn ñun. ndax nag ñun nag ñuy respecté ñu respecté la boo ñu respecté dañuy dem ci yoon ak yow lu ñu yoon may ñu jël te foofu lañ jëm ak moom. merci jërëjëf sëñ Fall.